ite nag Pape de moo nu woo fii tey si Jojo Meuble gis nañ fi euh, Père Ba te ku Père te ku gis per Ba gis euh, ne pa ne Papa Sow gis nañ fi aussi tonton Max te ku gis Max tamit ne waa Lansar euh, de Doufa nag xëy dañu dañu leeral ñaari ménager te li ñu fiy def fii si Jojo Meuble Pape Doufa maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ak monsieur Ba Mamadou Ba ak suñu président. Alaaji Basiru Baabu ak journaliste yi fi teew yëpp ak staffu PAF ni nga ko xamee làmb moo daje fii lépp it aussi ci biir làmb la donc euh, dañ fi daje waxtaanoon ci diggante Papa Sow ak Siteu alhamdulilahi alamin président Baabu suggéré ñu combat boobu ma ni ko combat bi kat suñu frère Fallou Ndiaye moom moo ci nekkoon Fallou it ci ak mbaaxam neen président comme da ngeen doon dox la leen sottiwul combat bi maa ci nekkoon waaye jox naa la ndigal jël ko muy lu may rafetlu di ko gërëm di ko sant moom fàllu Ndiaye gërëm baabu parce que combat bi ci deux heures de temps la taxaw bi ñu ma ko waxee ci laa dem kër per ba yàlla def ni moom ndax du fi nekk léeg-léeg day nekk ci liggéeyam ma ko woowee mun ma maa ngi Dakar ma taal oto bi ay 11h defe naa ni 11h30 maa ngi këram génn ko woo ñu joxoon te nii pour finaliser ko lépp dans le cadre de de la lutte. kon mu leen jàpp bi yoon delloo avance amul. waaw delloo avance amul alhamdulilahi rabbil alamin euh, loolu yàgg na ci làmb te it li doon déranger Pape Abdou Fall. moo doon ma waxtaan ak mbër dara desul lu dul jël si avance yi man ma dellu gannaaw wala naan ana guy gi ana daqaar gi mais man ba may nekk di mbébét combat boobu ci ay base yu leer laa ko teg ci ay charte laa ko teg ci ay kilifa laa waxal donc kooku du ci niveau Pape Abdou Fall alhamdulilahi rabbil alamin et puis àdduna noonu la risquement inda laa wërsëgu jaam yàlla lu dul sa wërsëg doo ko jot li sa wërsëg nekk rek kay daal di jot moom ngay doxal. est-ce que nañu xam combat bi kañ ko prévoir tëgg. bu neexee yàlla ñun PAF production suñu làmb du yàgg saison bi dina ubbi. ubbi na sax maa ni CNG dina woote pour ñu jël date yi mais du génn mois de mars su ko defee mbër mu ci daan yàlla may la ñaanal la yàlla may la possibilité nga bëri fin d'année encore fin de saison. di nga wax ni que Fallou Ndiaye moo nekkoon ci combat bi est-ce que tey amoo woon beneen combat boo xam ni yaa ngi ko prévoir tëgg bu Papa Sow Siteu. Euh, pour être honnête oui mais xëy na lii la yàlla dogal. incha allahu rabbi nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ma di ko remercier waat parce que jàppale na ma en passant maa ngi nuyu gërëm yëpp association wu promoteur yëpp ñoom ñëpp bi mbir yi amee taxaw nañ ma jàppale nañu ma guddi nañ ma bëccëgal nañ ma lépp rek ci intérêt làmb ak bokk ndey bokk bàyyi te jëf ji fàllu def daf koy firndeel kon maa ngi koy gërëm di ko sant di ñaan it ñu dugg ci lii rek ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ñu leneen ci fin de saison bi. est-ce waaw fu mu nekk nii fii ak ay fan yu néew danañ toog waxtaan nag ñaar ñu ko seqal fu mu ne nii présentation la rek ak jël seede du dëkk liggéey bi day door a commencer nag parce que nag ñu dugg ci saison bi waaw commencer yëngal. jërëjëf Père sa sa poulain jóge saison blanche mun nañu wax ni alhamdulilah ba mu amee combat ren. waaw loolu dëgg la maa ngi euh, président Babou di nuyu Max di nuyu di sant yàlla ci. xam nga mbër moom bëre rek mooy liggéeyam li max di wax su euh, tout le temps rek boo bàyyi perte la donc sant ci li bi ñu Pape Abdou Fall euh, yàlla dimbali ñu ba ñu am combat ci saison bi ndax daaw année blanche lañ loolu dëgg la. nañu ko Papa Sow mbër yu bëri nañu ko noonu laaj est-ce que jafe woon na ko Siteu xam nga ñii laaj Papa Sow bëri na mais euh, Siteu yàlla moo ko may loo xam ni yenn quelques mbër ñoo ko fi nit moom wax ci euh, wax ci mbaaxu nit du yàq sa mbaax dara yàlla moo ko may boobu bayre dañ koy ñaanal bayre boobu continuer yàlla may gul fan may ko wér donc ba Siteu tey mën na bëreeg sax roi des arènes su ko bëggee. ndax am na lu ko ko may donc bëreeg jafe na jafewul mais Pape Abdou Fall def na ci la mu ci war a def lépp fekk si juun ci la ñu bëggoon moo tax combat bi am.

mën naa jot te du yomb mais loolu déggin lay laaj ndax programme moom suñu borom ko yor te lu jot suñu borom rek yomb euh, combat bi daaw ba ren nit ñaa ngi koy waxtaane li ma naan mbër moom bu nit ñi dee naan ataaya ci seen diggante rek moo lay wan ne bu jaadu la kon ni ko ba waxee euh, papa moo jiitu ci làmb mais papa it mbër la moo xam ne mbër mu ne bëgg ngaa bëreek moom ndax jomam ak parcours bu mu def ci làmb Siteu di euh, xale bu lukkeeku yàlla may ko lim ko may moom it war naa mën a bëre euh, mbër yëpp mais wërsëgu Pape du Fall la ndax yeneen promoteur doon nañ ci wax rawatina fàllu Ndiaye am na ñeneen it ñu ci doon wax mais dañuy rafetlu kàddu Pape Abdou Fall Pape Abdou nag dañuy sawar ci bëriloo ko ndax du bii mooy euh, premier combat bu mu tëgg Siteu ndax su ma juumul bi mooy quatrième komba bu mu tëgg Siteu dañ ko ci ñaan rek yàlla defal ko ci réussite yàlla defal ko ci ndam ndax Pape Abdou Fall euh, moom njariñu làmb lay dox bi làmb méttee premier promoteur yu bëri retiré wu ne làmb day dee dafa laxa saa yu ne làmb du dee moo tax léeg-léeg saa wu ma wooyee ma ne ko am nga ndam ndax euh, xam nañ yéeneem ci làmb te toujours ma ne lekkul dërëmi làmb li ko war rek mooy jàpp ci développement wu dëkk bi rawatina làmb euh, kooku duñ def loolu di ko ñaanal waxuma ko ngir li mu teew ndax man lu ma gëm rek laay wax mais loo ci mënti dégg daal dañ ko ciy ñaanal yàlla defal ko ci lu koy njortam mbëri nag ñoom ñoo ci des promoteur bu yëkkatee alalam jox la contrat yi nanga ko respecté signature contrat yi na ko respecté fu mu la wooyee na nga ñëw nga remplir sa contrat jërëjëf. gis nañ combat bu muy taxaw fekk fi Siteu est-ce que dafay continuer toog foofu noonu continuer entraînement wala wala boog dina yóbbu si. non Siteu waroon na sax màggal si mais mën ngaa lim moog Zos fekk ko fi moog Sa Thiès fekk ko fi. moo guy gi fekk ko fi fii moo guy gi Pape Abdou Fall moo ko tëgg mi ngi toog fii di jokkoo ak Siteu bi ñuy joxe avancé kon bëriwul lu combat di taxaw sax di ko fekk parce que ñi koy doxal ñi ngi fii te it nag am na ci ñoom confiance ndax siiwul ñu ànd ak moom dañoo àndal moom ci début bi ba mu dégg daal yi kon moom loolu yàgg na combat di taxaw fekk ko fekk ko extérieur. ku ne cité ne combat MMA que léegi dafay tegandi MMA bi ba pare Pape Abdou Fall soog a duggaat si MMA bi. contrat bu ne da koy respecté fi ne contrat bi mu am mooy combat bii digganteem ak ci digganteem ak Pape Abdou ndax cité ku ne xam ne na euh, lu mu am lu ne làmb ji moo ko ko may. waa waaye am ci waa Jàmmagën am ci moom yaakaar Lamsaar am ci moom yaakaar jonwaar gi mu dëkk ak mbokki séeréer yëpp am ci moom yaakaar xalaatuñ ne dafa war a bëri rek dem dañoo xalaat ne fu mbër di toll war na fa toll kon moom dafa am lu mu dëgmal te te te yeggagu fa dañ koy ñaanal nag mu yegg fa. waaw association bi dañuy rafetlu bu baax baax a baax euh, combat bi ah. nga xam ne parce que Pape yàlla moom la def ne mooy suñu président. E, mu jiite association bi nag jiite bu am solo boole ñëpp man mën naa ne bokk naa mu ñu mujjee dugg si structure bi mais wax dëgg yàlla dafa mel ni tey jii yàgg naa si lool ah ñooru ma deful dala te lépp aussi ñu koy gërëmee promoteur yëpp mais di jël gërëm gi di ko teg si loxoom amoon lu fi weesu ñu naxarlu ko lool kenn ku ne di ko ñaanal yàlla mu am lu dàq lool te yaakaar naa ne combat bii nii. di Siteu Papa Sow ku ko dégg xam ne macha allah combat la ni ko Papa Sow waxee démb rek ba fekkee nga ko combat boobu ñeewul lenn combat cent millions yi wala deux cent millions donc vraiment ñuy ñaan yàlla promoteur bi lu mu bëgg ci combat bi yàlla may ko lu kawe njottam ñu fekk ko tal ko mu nekk réussite surtout làmb développement u làmb jërëjëf Birame ñëw jàmbur yi. parce que mais bien sûr parce que xam nga boo xoolee déjà Pape wax na ko ah. Fallou si station bi la bokk jif nga li mu def kon ça veut dire que gars li leen boole aussi du ay conflit d'intérêt parce que nga nekkoon si dara moom. mu bëggu ko nga jox ko ko ndax mooy sa mag mooy sa président mooy sa xarit mooy sa lépp kon tey jii ñun ñëpp noonu la ñuy doxalee kenn ku ne président wax na ko sànq ku bëggu ku soxla lu sa moroom bëgg rek nga baal ko ko mu dem parce que làmb moo soxla tey jii unité làmb moo soxla développement làmb moo soxla jàppalante parce que fi ñu toll la si noonu rek lañ mën a def pour vaincre défi yi te je pense que euh, euh, lii exemple bu rafet la te exemple la boo xam ne tey jii ñi doon wax ne promoteur yi di di division la que promoteur yi dañuy ànd mais dëgg du dëgg xam nga tey jii lii lii lii lii répondre na ay ay yu bëri nest pas donc vraiment ñu koy rafetlu encore une fois te bépp nitu làmb ëxlu làmb kenn ku ne foo mënti féete lii war nga koo rafetlu voilà waaw jërëjëf euh, rafet na Max rafet na Père Ba damay dolli rek ci li nga wax léegi Père Ba fàllu bi ma xëyee ñëw sa kër bi ñu waxtaanee ci laa la paas fàllu fàllu xamal na ni amul benn nuance ci suñu diggante këyit lu mu jàppoon ba ci nga commencé waxtaan ak man donc combat bi mu ngi ñu ngi ko taxawal en l' espace de deux heures de temps wala moins moyen de de ça donc loolu day wan rek fluidité bi am ci association promoteurs yi ku su nekk loo bëgg sa moroom bu ci nekkee taxaw nga yëkkati jox ko làmb jëm kanam et loolu la ñuy xaar ci làmb loolu la ñuy xaar ci sport ñu fas yéen nag ànd ci ak yéen dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu jàppalante ci intérêt wu làmb man ci loolu laay dox ci laay yëngu donc man na làmb am rek mu doon ma sàmba wala ma demba na làmb dox fu mu taxawee ne karaj moi je ferai tout bu ma yàlla dimbalee ba ñu yëngal su ko defee te li ma leen wax na ngeen ko xool làmb bii bu yëngoo nii yeneen yi ci yëpp day daal di yomb incha allahu rabbi ah yàlla na ko yàlla mottali jërë ngeen jëf yéen itam jërëjëf Max Père Max jërëjëf euh, Père Bab jërëjëf Père Babu jërëjëf journaliste yi fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant tàllal nañ leen loxo nag. incha allah ñu fas yéene ci liggéey lu rafet waaw incha allah.